asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool tey jile li leen gën a soxal mooy wàllu politique wàllu wér-gu-yaram ak njàng meeg njàngale mi dañu koy door ak ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication di Sud Quotidien li ko soxal nag mooy enseignants yi ñu duppee ay enseignants décisionnaires te leen rek a leen ñor mooy ñu dugal leen ci fonction publique bi Sud Quotidien ne lii daal mooy beneen rëkk-rëkk boo xam ne mun nañ ko nemmeeku ci njàng njàngale mi suñu réew kuréel bi nga xam ne moo ëmb ñooñu lee démb si seen jàkkaarloog taskatu xibaar yi file ci ndakaaru ñaawlu nañu anam yi nga xam ne ci la ñu nekk moo tax it ñaawlu nañu ñàkk tolloole bi nga xam ne moom la ñu nemmeeku te loolu day xajamal bu baax a baax seen carrière bu ñu sukkandikoo ci suñu naataangoo bi fare ci avenue Bourguiba SNELS ànd ceeg yeneen seen syndicat jàngalekat ñëw nañ jàppale ñi le ci seen xeex ñu ngi jox dig daje ci weeru mais bi ñu jëm ngir daal ñu jàkkaarloo nguur gi ngir ñi daal mun a am li ñuy sàkku ci biir l'observateur nag ñaawlu nañu bu baax a baax ñàkk jox gëdd ak doya ba war bi ñu ko ci ñoom te loolu yëpp nag bawoo ci benn circulaire boo xamee ci atum 1967 la génnoon démb di ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril ministère bi ñu dénk wàllu njàng mi jaarale ko ci ab communiqué indi nañu ay coppite ci wàllu l'examen yi CFEE bi ñu fas yéene ko amal ñaar fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin BFM bi moom lu ko delee ñaar fukki fan ak benn ci weeru sulet lañ ko fas yéene amal bac technique bi it ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin la ñu fas yéene mu door bac général bi moom dina door ci fukki fan ak ñeent ci weeru sulet bu ñu jógee ci njàng meeg njàngale mi ñu jàll ci politique bi ak dalal bi nga xam ne moom la njiitu réew mi doon dalal ci palais de la république maire bu yoof ci jamono joo xam ne nag président Macky Sall daal mi ngi xëcc ci wetam ay maire yu bëri yoo xam ne ci ku jege la ñu faree woon maire yu Yoff yi di Seydina Issa Laye Samb nag leeral bu baax a baax mbir yi ci biir Sud Quotidien muy xam xamle ni billi li dalal laalul ak dara ak politique mair bu yoof bi di xam xamle ni li ko yóbbu woon ceppale nag moo doon waxtaanee ñenn ñi nga xam ne dañuy teg loxo ci tefes bi ci commune am te yooyu li xibaar nag ni muy amal campagne électorale bi ci cité jàmmalaay la moo tax it Seydina Issa Laye mi ngi le ne xel xalaatul benn yoon mu juge ci l'opposition bi mu bokk bu ñu jógee ci maire bu Yoff ñu jàll ki doon maire bu waaye di Aliou Sall ci kan moo nar a jiite association des maires du Sénégal bi nga xam ne moom moo ko doon jiitee l'observateur di ñu xamal ne maire yu bëri yi nga xam ne dañoo bokk ci mouvance présidentielle bi fi mu toll nii daal ñu ngi ci biir àll bi ngir amal campagne loolu yëpp ngir mën a wuutu Aliou Sall ci bopp AMS buñ ci indiwul benn coppite nag ci weeru juin bi ñu jëm lañ nar a yeesalaat seeni bànqaas muy am benn weer balaa ñuy amal election tabu député yi ñu fas yéene amal ci fan weeri fan ak benn ci weeru suleet l'observateur di ñu xamal ba tey nii fukki député ak juróom-ñaar yu fare ci kujje gi nag yóbbu nañu ab recours ci conseil constitutionnel li ñu bëgg mooy ñu niilal projet de loi bi nga xam ne moom la assemblée nationale voté woon jëmale ci soppi code électoral bi te ñu amaloon ko ci fukki fan ak juróom ci weeru avril bi ñu nee ñu waxtaane nag grève wi nga xam ne moom la pharmacien yi doon amal démb ci àjjuma ji lu ko dalee huit ki suba jàpp ñetti waxtu ci ngoon nag du benn pharmacie boo xam ne ubbi na bu ñu sukkandikoo ci Sud Quotidien li taxoon ñuy xeex mooy dañu bëgg ministre bi ñu dénk wàllu wér yaram mu delloo licence grande pharmacie dakaroise docteur Aïcha Kandia Mbodj secrétaire général syndicat bi ëmb pharmacien privé yi Sénégal di docteur assan Diop di xamal waa Le Soleil ni daal seen grève liñ ci doon ut yëpp am nañ ko ci docteur assan Diop xamal ko waa Soleil Le Soleil bi ñu gën a xamleeg centre dialyse bi ne ci Touba ak ci jafe-jafe yi nga xam ne ñi amee wàllu feebaru roño moom la ñuy jànkoonteel rawatina si seen wàllu jalis ñu ngi sàkku ci nguur gi daal mu jàppale leen ngir ñu bañ a fay dara bu ñuy segg seen deret bi docteur Samba ñoo ci hôpital Matlaboul Fawzeyni bu tuubaa di xam le ne saa su ne dinañu fa dalal ñaar jàpp ñetti malade ñeenti malade yu yees jëmale ci wàllu mbas mi nag li ñu siiwal démb mbas mi mi ngi ba tey suñu réew artu bi nag mi ngi bawoo ci docteur Alioune Badara lii di directeur bu COUS mu sekk waxtaan bu yaatoo yaatu ak wàllu observateur muy xam la ne ci am ndaje boo xam ne ñu ngi ko doon amal ci fukki fan ak benn ci weeru avril bi kii jiite kuréel bi ñu dénk wàllu wér yaram ci àdduna wërngal këpp mi ngi xam la ne mbas mi daal bu yeboo ñu bàyyi ko xel bu baax a baax l'observateur di ñu xamal ne am nañ benn ndaje muy ñaareelu yoon ci àdduna wërngal wërngël këpp bu ñuy waajal ci wàllu mbas mi te ñu fas yéene ko amal ci fukki fan ak ñaar ci weeru mai bi ñu jëm ñu des ba tey ci wàllu wér-gu-yaram waxtaane waat mbirub Astu Soxna bi ñàkk bakkanam ci hôpital bu Louga ak kuréel bii di patient en danger ci samedi gi nag dañoo fas yéene dem ci place de la nation ngir ñaawlu ko waa FRAPP Y en a FADEV ak Sontimobile dinañu fa teew ñu jeexale ko wàllu tàggat yaram doox ko ak waa SAD bi waxtaanee jeexital ay bés yu gaynde yi bu ci mel ne Gana ak Diallo bi nga xam ne fi ñuy àgg lañ nar a bokk Sadio yit ñu ngi koy xaar bu baax a baax ci jongante ci biir mbokk bi nar a am ca merci ñu des ak Sadio Mané ak waa record jox kàddu Jay Okocha nekkoon footballeur international ci Nigéria africain yi daal dañ leen beddi ci ballon door bi bu dee am na keneen koo xam ne moom lañ jox bile ballon d'or daal mu xam ne mbir yi jaarul ci yoon mu ñaawlu ko bu baax a baax ëttu yéenekaay it li leen soxal mooy fukk ak juróom-ñeenteelu journée bu ak jongante yu am solo yi nar a am ci diggante douane génération foot càmbaar ak jaraaf ak ci diggante Tëngéej FC ak Géejawaay football club ñu jeexale kook wàllu lomb ak waa sunu lomb bi jox kàddu gi Modou da doon dellu si si kombaam ci diggam ak ama waxu ci lu leer ndax xam le ne daal munul addu ci loo xam ne daal amu ci benn dogal ci àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril bi ñu ne maanaam fi léeg ñeenti fan daal dinañu xam ndax combat bi nga xam ne ñëpp moom la ñuy xaar ci saison bi ci diggante Modou ak Ama Baldé dinañu ko tëgg am déet balaa ñuy am tontu li nag ñun fii la ñuy yem ñu yendoog jàmm Bonjour. La presse du jour s'intéresse à la politique, à la santé et à l'éducation. Reversement tardif des enseignants décisionnaires dans la fonction publique, l'autre anomalie de l'école. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. L'Union des collectifs des enseignants décisionnaires a fait face à la presse hier vendredi 22 avril à Dakar pour la situation incompréhensible que vivent ses membres. Appelant à de décisionnaires dans le système a fait part des inéquités qui frappent les décisionnaires et qui bloquent leur plan de carrière, informe le quotidien du groupe Sud Communication. En renfort, le syndicat des enseignants libres du Sénégal, accompagné des autres syndicats de l'enseignement pour le reversement des enseignants décisionnaires dans la fonction publique, a pris date au mois de mai pour un plan d'action et de lutte contre les injustices faites aux décisionnaires. Dans les colonnes de l'Observateur, les deux collectifs ont demandé le reversement afin d'en finir avec ce statut dégradant et humiliant consacré par une circulaire datant de 1900. 67. Dans son communiqué publié hier, le ministère de l'Éducation nationale a opéré des réaménagements sur le calendrier des examens. Pour le CFE, la date des 22 et 23 juin a été retenue. Le BFM est fixé à partir du 21 juillet. Pour le baccalauréat technique, il est prévu à partir du 27 juin et le baccalauréat général sera tenu à partir du juillet. De l'éducation, passons à la politique avec l'audience du maire de Yoff au palais. Dans un contexte de débauchage, parrainage des maires de l'opposition par Macky avec le maire de Yoff Seydina Issa Laye qui rétablit la vérité. Il est monté au créneau hier pour apporter des éclairages. C'était lors d'une déclaration de presse tenu dans les locaux de sa mairie, informe Sud Quotidien. Il n'a jamais été question d'audience politique ou d'une volonté quelconque de transhumance. Le maire a confié aux confrères de l'avenue Bourguiba qu'il s'est rendu à la présidence de la dans sa commune dont il a été informé lors des visites de proximité durant la campagne électorale par les collectifs des habitants des cités Diamalaye. Enfilant la tunique de sapeur-pompier, il a éteint la folle rumeur de son audience au palais. Seydina Issa Laye Samb réaffirme son ancrage dans l'opposition. Place à présent à Aliou Sall avec l'Observateur qui renseigne que pour le contrôle de l'Association des maires du Sénégal, la bataille de succession fait rage. En effet, des maires, tous membres de la mouvance présidentielle, ont manifesté leur désir de succéder à Aliou Sall. Ils sont sur le terrain pour battre campagne en attendant l'élection du bureau de l'AMS prévus sauf changement en début juin, soit exactement un mois avant la tenue des législatives du 31 juillet. Justement, l'Observateur indique que 17 députés de l'opposition déposent un recours au Conseil constitutionnel pour l'annulation de la modification du code électoral votée à l'Assemblée nationale le 15 avril dernier. Intéressons-nous à présent à la grève des pharmaciens du Sénégal qui a eu lieu hier vendredi. Les officines ont été mises sous scellé de 8 à 15 heures, informe Sud Quotidien. Une grève pour manifester leur mécontentement face à la décision du ministre de la Santé de retirer la licence à la propriétaire de la grande pharmacie dakaroise, docteur Aïcha Gunja Mbodj. Pour le secrétaire général du syndicat national des pharmaciens privés, docteur Hassan Diop, leur grève a été suivi de 98 à 100%. Il l'a confié au soleil. Restons avec l'astre national qui s'intéresse au de dialyse de Touba et nous relate le difficile quotidien des insuffisants rénaux, difficile quotidien aux côtés des soignants dont la cité religieuse, où ces pathologies font des ravages, les malades appellent à une gratuité totale des services de dialyse. Docteur Sambagnon, néphrologue à l'hôpital Matlaboul Fawzeni de Touba, affirme Chaque jour, nous recevons 2 à 3 nouveaux malades. Quatre nouvelles infections à la Covid-19 ont été recensées hier par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. La pandémie est toujours là au Sénégal, informe Docteur Alioune Badara Ly, directeur du COUS, dans les colonnes de l'Observateur. Selon lui, lors de la 11e réunion du comité d'urgence de l'OMS qui a eu lieu le 11 directeur général de l'OMS a la pandémie continue de constituer une urgence de santé publique de portée internationale, a signalé, toujours selon l'Observateur, que le deuxième sommet mondial sur le Covid-19 aura lieu le 12 mai prochain et sera coprésidé par les États-Unis et le Sénégal. Parlons toujours santé avec l'affaire Astou Sorna, avec le collectif Patients en danger qui sera à la place de la nation ce samedi pour réclamer justice. FRAPP, Y en a marre, le FADEF Santé mobile sont au cœur du combat. Parlons sport à présent tout d'abord avec SAD, le quotidien du sport, qui s'intéresse au week-end des Lions, avec Ghana et Diallo vers le sacre, alors que Sadio est dans le derby. de la Mercé. Record donne la parole à Didier Okocha, ancien international nigérien. Les Africains sont exclus du Ballon d'Or, constate-t-il amèrement et ajoute un autre gagnant que Sadio Mané serait scandaleux. La presse sportive s'intéresse également à la Ligue 1 sénégalaise avec ce duel à distance entre Génération Foot et Casa pour la tête. GFC sera revanchard face au Tengej FC. Terminons par Sunulombe qui donne la parole à Modlo qui laisse planer le doute sur la tenue de son combat contre Ama. Il déclare "Je ne peux pas me prononcer sur quelque chose que je ne maîtrise pas." Sunulombe signale que c'est le mercredi 27 avril prochain, c'est-à-dire dans quatre jours, qu'on en saura un peu plus sur la tenue cette saison du combat royal entre Modlo et Ama Baldé. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.